dal leen ak jàmm seen seen bii di seen njëriñ bi kii di Pape Alé Niang ba kii di Matar Diop génnee daal di xamal sénégalais yi que ne kii di président Ousmane Sonko daa bindoon ab lettre kii di président Macky Sall di sàkku ci moom mu daal di koy aar ak famem ndax buñ sukkandikoo ci kii di Matar Diop ne kii di président Ousmane Sonko lu sababoon mu daal di bind lettre boobee kii di président Macky Sall mooy que ne daa détourné woon vingt millions de dollars. si ay lobby yu yëngu ci ay pétrole ginnaaw ba amalee li ni mel nag lobby yooyee ñoo ko toppoon di ko menacé naan ko boo ñu joxaatul suñu xaalis dinañ la daal di def lu bon yaag sa famille. kii di Matar Diop ne li ni mel moo sa bon kii di président Ousmane Sonko bindoon lettre boobee kii di président Macky Sall ngir mu daal di koy aar moom ak famille si li ni mel nag kii di Pape Alé Niang yëkkati na ay kàddu daal di ciy àddu lu si xamal kii di Matar jóob mooy ko ne waxam yooyee. amuñu bopp waaye tamit waxam yooyee amuñu genn ne tamit kii di Matar Diop ba muy jubal kàddu yooyee kookee daa foogoon ne xanaa si ëpp ci sénégalais yi dañoo dof ni moom ndax ne état bu Sénégal ba muy jàpp kii di président Ousmane Sonko lu mu joxe comme lay mooy que ne kii di président Ousmane Sonko dafa sàcc portable ab gendarme ne kon kii di président Macky Sall bu yoroon ab lettre bi nga xam ne ne kii di président Ousmane Sonko ci wàllu boppam moom moo fay avoué que ne dafa def ab détournement kon ngeen foog ne état bu Sénégal dina jàpp kii di président Ousmane Sonko ba noppi di ko layelee ne dafa sàcc ab portable ne lu leer ba am mooy que ne kii di président Macky Sall bu amoon ab lettre bi nga xam ne ki, di président Ousmane Sonko da ko cee bind te ci biir lettre boobee muy avoué que ne dafa amal détournement kon ki di président Macky Sall génne na lettre boobee bu yàgg ba daal di siy tëj lu di président Ousmane Sonko. ne waxu Matar Diop yee tamit luy firndeel que ne du dëgg mooy que ne ginnaaw ba mu ko jibalee ba tey. état bu Sénégal ibbiwu ci benn enquête nasul benn pexe ngir ñu daal di xam ndax contrat boobee kii di Matar Diop di wax am na waaw wala déet ne li ni mel nag lu muy firnde rek mooy que ne kàddu yooyee kii di Matar Diop yëkkati woon na ay kàddu yu warul la loolee moom moo tax état bu Sénégal jéemu cee def benn effort kàddu yu ni mel la kii di Pape Alé Niang yëkkati woon na daal di tontu kii di Matar Diop ginnaaw ba mu jëlee ay xeetu tuuma daal di ko teg ci ndodd kii di président Ousmane Sonko.